télé waa bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV c'est bon waaw ñoo ngi ci box numéro 128 waaw fekk fi un très grand champion bergerie lébu gi ñu koy wax Papis Papis waa Ladoum TV ñoo ngi maa ngi fay ñëpp maa ngi fay waa Ladoum TV Papis euh, gannaaw ba nga ñëw ci foire bi ñu gis nga def euh, exposition bu rafet jël ñaari box lu waral choix ñaari bokk waaw man moom des fois suñu trésorier daf may tooñ sax man tout le temps da tàmm naa di jël ñaari box. defe naa daal benn édition laa mosul exposé mais six éditions yi ma exposé toujours deux box laay jël waaw toujours deux box laay jël waaw. waaw kontaan nañ ci loolu loolu rafet na ñaari box nga jël waaw ñaari box yi ñu gis fi nga indi fi benn jeune mâle bu rafet bu doy waar am auteur bu jéggi dayoo waaw mu ànd ak ay femelle nga présenté ñu jeune mâle ba mooy kan. waaw ah, jeune mâle bi mi ngi tudd wës bon di doomu Vieux Diallo Vieux Diallo di doomu Jamin bon ainsi de suite ainsi de xam naa dinaa ko gën a leeral quoi côté yaayam bon kati la kati di doomu Maguette Seck Maguette Seck doomu Yékini Yékini bon sëñ Lamine waaw moom mi ngi toll ci à 19 mois waaw ñëw naa nag àndaa indaale ñaari doomam yoo xamante ne moom la taawloo kër ga quoi waaw doom yi par rapport ak moom ñaar doom rek la am wala am na yeneen doom yu góor. am na daanaka euh, quatre produits la defagum trois femelles ak benn mâle. naka nga jàngatee produit yooyu femelle bi ak mâle. non femelle yi moom gars yi sax ñoo apprécier man apprécier wu ma gars yi sax ñoo apprécier parce que am na si benn naissance boo xam ne daa mel ne dama koy joxe sama gars yi ne mukk dee na moo tamit du dem quoi mais gis naa ne franchement fi ma tolloon si élevage mâle bi mu ñëw na yëkkati niveau bi quoi. waaw yéeg ñëw na yëkkati niveau bi quoi waaw waaw ñu gis mu nekk xale bu ndaw ñu nga dugal ko concours mu fekk fa ay moromu papaam ak ay moromu nijaayam nga fàttali ñu maturation yi mu am. waaw moom maturation yi boo xoolee euh, tour bi euh, tour tour du portail bi mi ngi am 119 bon euh, LCS bi mi ngi am 153 autour bi mi ngi toll si 113 te daanaka tëngéej sama gars ñi ma koy xaw ma nag am na xaw ma amul daal. ne ma maal bi baataroo ko Tëngéej parce que Tëngéej amul benn maal boo xamante ne mës na am ah loolu tamit naa nee naa fierté bu loo bu amee tamit fierté Tëngéej la quoi mais fierté Tëngéej la quoi parce que mi ngi si à mois ñëw ñoo xamante ne ñi duggoon daaw grand mal comme lu mel ni ay kaaw Sambane bon ay kaaw wax maalu Xalifa Gueye bi tamu daanu man maa ngi koy nuyu au passage ñoom ñëpp ah, boobu ay grand mal lañ nemoon nañ si duggoon ay vingt 25 26 mois ñoom ñi ngi doon 111 112. mais moom mi si vingt dix neuf mois ñëw def cent treize. di ko ñaanal nag bon yàlla yokko yokko wér gi peut être te ngay jëmman si jariñu quoi waaw te ngay jëmman si jariñu. loolu am na solo ak lu élevage bàyyi leen euh, maal bi xel bu baax a ñu ñëw ci deuxième box bi ñu fekk fi benn femelle bu rafet bu def benn kawas. waaw mooy benn tànk bi dafa tout tout noir. waaw nga wax ñu femelle boobu. waaw femelle boobu moom moom mooy Adja moom laa tuddee Adja. daanaka famille bi nee naa dama ko doon tuddee sax rek waa mais comme que sama booy bi ba fasantel wóllëre dafa ma ko jox ci amin xol bu sedd daanaka ni ñu naan rendre César à ce qui appartient à César dama ko njëkk jox femelle booy moom naa ko jox femelle yëkkati jox ko mu yàgg ma topp grand kaay jël kaa jël ma ne ko noonu man amoo problème bis ma waree jël femelle bi naa ko jël ba benn jour femelle mu jot ma nekk léegi danga ma koy jox femelle ma yëg yóbbu ko mooy yóbbu ko nag sam benn waay ji nga ameen Ndiaye chauffeur camion ñëpp xam nañ mu jëndoon benn doomu Saalum ko lutte mu mayoon ma si couragement nag mu génnee tëngabale le premier bi bi passé la am 12 mois donc le premier bi passé la Papis loolu am na solo nga fàttali ñu bergerie bi fu mu nekk ak sa numéro téléphone. waaw bergerie bi mi ngi nekk Tëngéej Colobane 2 euh, Nord mooy euh, après euh, boulangerie Nada boo foo laajte kër Papis rek ñu wan la ko bon numéro téléphone bi mi ngi 739 75 59 expresso bi 70 405 10 11 waaw turu berger berger li lébu gi berger li lébu gi waaw berger li lébu gi. émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal